waaw lamb am na naqar parce que suñu xarit suñu doom day mudlu tey la tis dal ci kawam mu wa ñàkk waajuram bu góor kon donc ñu koy bu baax baax baax di ko wax mu delloo ci xelam ci yàlla ni ko lii dëkkul fenn fu ko neex lay jaar barki démb man la woon yaa ngi dégg tey moom la kon donc na sant yàlla xam marchandise yu yàlla la yàlla moo soxla jël na marchandise kon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla way suuf si kawam yàlla xare ko àjjana ci àjjana yi gën a kawe yal na ko yàlla booleeg malaaka yërmande ci biir bàmmeelam di ko jaale suñu yaay ju baax jooju tamit di ko jaale tamit ay magam ay rakkam waa kër gi ñëpp di ko masalu nag bu baax a baax a baax ndax ñàkk waajur dafa metti man xam naa si dara keneen ak keneen xam na si dara ñi nga xam seen waajur ñoo des ci àdduna bi nag yàlla guddal seen i fan waaw di ko masalu daal di ko jaale waaw démb déggante nañ téléphone waaw jaale naa ko ma ñëw genre sama yaay ci àjjuma gi yëg na fii lañ koy denc ma toog xaaraale ko waaw maa ngi koy masu lu baax a baax di ko jaale axlu làmb yëpp mbër yëpp nag bàyyiwuma kenn bu ci ndaw bi ba ci kaw maa koy jaale ñëpp jërëjëf.